wa min al arabi bokk na ci arab yi man koo xam ne yulxiqu dana yégalal al fi'l la fi'l ba xalaamata tasniyati màndargam tasniya wal jami ak jam idaa kaana ndem nekk na al faaxilu faaxil ba musannan di lu ñu tasniya aw jam xan wala muy jam am na ci arab yi ñoo xam ne nag bu faaxil ba doonee ñaar wala mbooloo dañuy def ci fi'l ba màndarga muy wane ne faaxil bee di bëgg a dikk ñaar la wala mbooloo la waaye loolu des koy xam rek nag ngi boo gisee mel naa jaaxal waaye kenn du ko jëfandikoo fa taxul da nga wax boo leen toppee ci misaal ne xaamaa taxaw na kese ak zeydaani ñaari seyd ya wa xaamu taxaw na ak zeydoona seyd yu bari ya wa xum na taxaw na alxindaatu xindi ya dañoo waxoon ne nga wax rek ne xaama ak zeydaani xaama ak zeydoona xaama til xindaatu loolu la ñu waxoon démb am na arab yu def nii nag xam ne aseydaane bi ñaar day tax ñu def fi alif def ko xaamaa aseydaane bi mbooloo jam xamu sàkkar tax ñu def fee xaamu alxindaatu bi mbooloo mu jigéen tax ñu def fee na muy xom na muy mu ngi dellu ci mbooloo mu jigéen fekk jubluwuñ alif bi ci xaamaa nekk faaxil mbaa waaw gi ci xaamoo nekk faaxil wala na bi ci xom na nekk faaxil déedéet dañoo bëggoon rek ne faaxil bi nangam la rek lañ jublu watu sama def na ko tudde luxata ak loonil baraaxiisu luxay ak loonil baraaxiis li ann haada lafza ngir naka bi le baat sumiha déggeef na ko min baadihim tukkee ci lenn ci ñoom waxin woowu nañ koy tudde luxatu ak loonil baraaxiis ndax jëmi baatub ak loonil baraaxiis nañ ko jëfandikoo noonu te baat boobu ci ñoom lañ ko déggee woon ndax xam nga ak la nii al baraaxiis mbaa ak lat nii rek la waran doon waaye waruñ ci woon def waaw def ci waaw na ngir topp waxin woowu ci ñoom lañ déggee baat boobu nag far tuddee seen waxin woowu noonu tuddee ko luxata ak loonil baraaxiis wa minhu bokk na ca alxadiisu addis ba ñëw ne yataxaaqaboona dana wutante fiikum ci yéen malaaikatun ay malaaka bil layli ci guddi wa malaaikatun ak i malaaka bin nahaari ci bëccëg yataxaaqaboona ji bu toppatoon luxatu ak loonil baraaxiis yataxaaqabu rek la yataxaaqabu fiikum malaaykatun waaye dafa topp waxin woowu nag li mu mu daal tax mu jokk ci waawu noonu ndax wane ne malaaykatun bee mooy faaxil wa saxiixu aji wér ja mooy àndal alifa nag alif ga wala waaw ak waaw ga wala nuun ak nuun ga axarufun ay araf lañu daal lët ñuy aji tegtale àla tasniya ci tasniya wala jëfe ak jam wa àndal faaxil ak naka faaxil ba maa mooy la nga xam ne bax daxaa nekk na ci gannaaw nee na ñoom ñu wax loolu jublu ñoo def alif ga faaxil wala waaw ga wala nuun ga ñu bëgg wax ne ay araf la ñu wane ne faaxil yu dëgg dikk nangam la alif bi mooy wane ne faaxil du ko topp ñaar la waaw ga wane ne mbooloo mu góor la na ga wane ne mbooloo mu jigéen la wa min xaa bokk na ca attey faaxil ñu àndahoo naka moom eeji bu dana war ta aneesul fixil yi jigéen la fexal ba bitaayin ci taa saakirit bu di aju sukkoon fi aaxiril maadi ci mujjub maadi wa bitaayil mudaari ak ci taayi mudaarihu fi awil li mudaarihi ci njëlbeenu mudaarihu ma ida kaana dem nekk na alfaaxilu faaxil ba mu wan na sa ndiluñ jigéenal bu faaxil ba doonee jigéen te mu jigéen dëgg-dëgg nga xam ne am faaxil ba doonee jigéen dëgg-dëgg mooy lu yàlla sàkk la mu am sawukaayu jigéen kon bu fexeel ba doonee maadi nga ci def at bu dee mudaarihu nga tàmbalee ko taax moo ne ne kon faaxilam jigéen la naxu xaamat taxaw na xindun xind ak wa taqoowu dana taxaw xindun xind am nga xind jigéen la te ñi ko yàlla bind ca dëgg-dëgg du rek làng wee ko jigéen waaye day jigéen dëgg-dëgg kon nga defee at muy xaamat bu dee mu daari itam nga tàmbalee ko taa ki taqoo mu xindun loolu nag baat boobu jiitu ak mujj ñooy moo boo ne woon xindun xaamat du tee nga def ci at boo ne woon xindun taqoo mu it noonu la da nga koy tàmbalee taa waaye yos na dagan tarku taay bàyyi taa ba inkaana dem nekk na alfaaxil faaxil ba majaasi yetta anis yi di majaasi yetta anis majaasi yetta anis mooy loo xam ne làng wee koy jigéenal rek waaye ci dëgg-dëgg du lu yàlla sàkk defal ko sawukaayu jigéen fekkee ne kooku nag mooy faaxil moom bu la neexee bañu andi att ja bu la neexee bañ koo tàmbalee taa bu dee mu daari bu la neexee bu dee maat yi nga bañ caa def at naxu talaxa fenk na asam su jant ba asam su jant al ardu suuf asama asamaan annaaru sawara yëpp dañ leen jigéenal ci làng wi te duñ jigéen dëgg-dëgg kon bu la neexee ne talaxa samsu bu la neexee ne talaxati samsu la jox baax na ak waxawlu wa taala wa ma kaana nekkut salaatuhum seen julli indal bayti fa kaaba ga illa muka an dara di ak walis xam nga salaatu am gi mu am taa rek moo ko tax a doon jigéen waaye nekkul jëmu ji am ru yàlla sàkk ko mu am sawkaay jigéen moo tax foofu kaana rek la ko def ñëwul wa ma kaanat bu doon sooxe bopp nag bu la neexee def ci att ji ne wa ma kaanat salaatuhum salaatu nag mooy lisimi kaana mu nekk lisimi kaana ak i mbokkam ak mu nekk faaxi ñooy mooy ci boobaate wa xukumul musanna atteb lañ tasniya wal majmuhi ak lañ jamhu jamha tasihin jamhu tasih xukumul mufradi mooy atti mufrad ma luñ jamhu jamhu tasih mooy luñ jamhu jamhu muzakkar mbaa mu annas loolu jublu ci luñ jamhu jamhu tasih dafa bëgg wax tasniya ak jamhu muzakkar ak jamhu mu annas boo bëggee xam ba xam seen fi'al war nga koo jigéen mbaa déet nga seet mufrad ma su fekkee boo andee mufrad ma day day doon góor kon xam ne tës nii gëm ba jàmm nga du tee nga jàpp final ba bañ caa def dara ci màndargam jigéen bu fekkee boo andee mufrad ma day doon jigéen nag kon see bu teel def ci final bi màndargam jigéen waaye ñu misaal la ko ba taxul li nga wax ne xaama taxaw na ak zaydaani yaari saydiya nga dellu saydun xam nga saydun mufrad mu góor la borom moom xaama saydun kese ngay wax kon fii da nga wax xaama saydaan bañ cee boole at xam nga wax xaama saydoona saydoona mooy jàmm muzakkar bi waaye mufradam saydun la woon pour moom doo ci defat kon jàmm ba tey doo ko ci def wa qaamat taxaw na al muslimataani ñaar jëluñ jigéen ña xam nga xam ne al muslimatu mooy mufrad ma te xam nga kooku jigéen la borom moom faaw nga ne qaamatil muslimatu kon boo ko tës ni yaa ba tey du dee nga indi att ji ne qaamatil muslimataani ba tey wa qaamat taxaw na al muslimaatu noonu la xam nga mufradam mooy al muslimatu te borom moom faaw nga ne qaamatil muslimatu kon boo ko jam xoo itam xëy boo def ci at. ne qaamatil muslimaat bu doon mu daari faaw nga tàmbalee ko taa ki taqoomul muslimataani ak taqoomul muslimaatu att boobu day def bu ci àll sësee maanaam bu ci sukkoon sësee ñu wëlbati att ji muy ti yaa sukkoon bu dajee day naqaree jàng ñu wëlbati ku njëkk yi muy kasaram wa amma jamxu taksir ndaal jamxu taksir fa xukkumu xoo atteem xukkumu majaasi taanisi mooy atteeb majaasi taanis jamxu taksir moom atte mooy atte ba rek majaas yu taanis maanaam lu ñu jigéenal ci làng wa rek te du jigéen dëgg-dëgg li nga waxoon bu la neexee jigéen la fi xam bu la neexee bàyyi bu jam taksir doonee faaxil mbaa muy listimi kaana ki bokk mi noonu lay mel la neexee def att bu la neexee bàyyi taxul nag wax ci misaal ma ne xaama taxaw na ar rijaalu góor ña wa xaama til rijaalu wa xaama taxaw na al xunuudu hindiya wa xaama til xunuudu xam nga ar rijaal jam taksir la la neexee xaama ji ko jiitu nga bañ cee def at ne xaamar rijal ba neexee def ko ci muy xaamatir rijal alxunóodu ci am hindin la ndax am mufrad ma sax moom jigéen la waaye boo xasee jam taksir moom muy xunóodu moom la neexee def atum la neexee bàyyi mën nga ne xaamal xunóodu mën nga ne xaamatil xunóodu te kat boo defoon alxindaatu muy jam maanas moom faaw nga defee at waaw kon faaw nga ne xaamatil xindaatu ndax boobaa jam maanas la bokk te jam taksir bi nga toll wa min xaa bokk na ci àttee amal asal naka lay cosaan fii ci moom an yel yow mooy mu topp fi'lahu fi'lam ba su ma tazkura topp da nga tudd al maf'ula maf'ulun bihi ma bokk na ci àtte yi faaxil lay cosaan mooy da ngay indi faaxil bi mu sus ci fi'al bi nga door a indi maf'ulun bihi loolu mooy cosaan nahu wa warisa te doon suleymaanu suleymaan daawuda daawud nga warisa fi'lul maadin la suleymaanu mooy faaxil daawuda di maf'ulun bihi gis nga nag faaxil bi jiitu na maf'ulun bihi mujj loolu nag mooy cosaan waxat yata axaru amaana bu mujjee nag alfaayilu faayil ba wa yataqaddamu tey jiitu al mafxul mafxul ma jawaasan ci ak dagan man naam na nga gis mafxul bi ma jiitu faayil ba mujj ko tey ci coobare kii wax rek la du nax woo ko waral naxu wala xad jaa dikkal na aala firxaw na ñoom firxaw na al nuzuru xuppekat ya xam nga jaa fil maadin la aala di mafxul bihi tey mu daa firxaw na firxaw na day maa laay sarif moo tax mu xawale fataa al nuzuru mooy faayili jaa gis nga ne am nuzuru mi faaxil bi moo mujj ala di ma fulum bi jiitu ko te loolu dafa dagan rek waaye nekkul lu war ci naxu woowu jooban ak ci lu war mën naa am muy lu war nag naxu soxalat naa soxlaal nanu am wàllu naa suñuy alal xam nga soxala fii lu maadin la at bi xalaama taanis la naa ji nekk ma fulum bi daal di jiitu am wàllu mooy faaxili soxala tey mu daaf naa foofu nag naa bi jiitu gi mu jiitu mënta ñàkk ndax soo ko defutoon da ngay andi mun fasil waxal muttasil mën na faa ñëw ndax kon faaw nga ne shaxalat awwaluna iyana bu fekkoon ne defoon naa ji ba fóolu bi mu jiitu faaw nga ne shaxalat awwaluna iyana te kon nga indi iyana muy mun fasil foo xam ne naa bi muttasil mën na faa ñëw kon ngay jàpp ne su ma fóolu bi mu nekkee damiri muttasil rek faayil ba nekk lismi zahir niki awwalu faaw da ngay jiital ma fóolu bi mu nekk damiri muttasil mujjee faayil ba ak wanahu wa izib talaa banatoo ibrahima ibrahim rabbuhu boromam foofu da ngay takk ne su fekkee ne faaxil ba da nga caa jokk damir boo xam ne daa war a dellu ci mafoolum bii ma xam nga rabbu mooy faaxil ibtalaa da nga ci jokk xoo ci xoo war a dellu ci ibrahim nga xam ne kon faaxil ba jokk nga ci damir te war a dellu ci mafoolum bii ma su boobaa faaw da ngaa war a jiital mafoolum bii ma mujjee faaxil ba ndax soo ko defut da nga delloo damir ci loo xam ne ma nga ca kanam ñëwagut te daa mujj war a mujj boole ja xam nga boo ne woon wa izibtala rabbuhu ibrahima ibrahima topp ci rabbuhu xoo bi ci rabbuhu day dellu ci ibrahima ci yooyu jamono te kon xam nga ibrahima moo mujj si ni ngay xool say bët moo mujj ci xoolu bët bi te moo moo mujj ci àtte bi ndax moo war a mujj kon xam nga li li baax mooy damir bala nga ko indi rek la nga koy la nga koy delloo ñëw ba noppi wa qad yataqaddamu amaana bu dana jiitu al mafxoolu mafxoolum bihi xalal fiali ci fial wal faaxili ak faaxil jawaasan ci ak dagan maanaam sax nga gis mafoolum bi jiitu fial ak faaxil dooru dikk te muy loo xam ne dañ koo def rek waaye mënoon naa ñàkk maanaam nekkul lu war jawaasan rek la comme neexan bañ koo def mel ne ci alquran fariqan kazabu wa fariqan yaqtuluuna kazaboo fenloo nañu maanaam weddi nañu fariqan am mbooloo ci yonante yi wa yaqtuluuna te dañoo rey fariqan am mbooloo ba tey ci yonante yi xam nga fariqan mafoolu bii la ci kazzaboo te ñëw na ba noppi kazzaba nekk fihilul maadin waaw gi nekk faaxilam xam ne kon mafoolu bii mi jiitu na feexal beeg faaxil bi ba tey yaqtuluuna fiilu mu daarixu la rafaaye noonu gi waaw gi di faaxilam fariqan nekk mafoolu bii ci moom te gis nga moo ko jiitu waaye lépp jawaasan rek la bu doon su waxi bopp bu la neexee ne kazzaboo fariqan wa yaqtuluuna fariqan waaw jooban ak ci lu war nga gis béréb boo xam ne jiitu ga ba foofu bi ma jiitu fexeel ak faaxil dooru dikk lu war la kenn sañu koo bàyyi mel ne fa ay ayaatillaahi ana ban ci kiimtaani yàlla yi tunkiroon ngeen di weddi di ko waral mooy li an nasmal istifham ngir nag lisim istifham laxoo ñel na ko sadrul kalaami ñel benn wax day wane ne ay ya jooje ma foofu bi la ci tunkiroona tey mu daaf ayaati ayaati laaflaahi tunkiroo nekk fii lu mu daarixu rafaaye noonu waaw gi nekk faaxilam aye ji ma foolu bi xam nga jiitu na ko laata nga indi fexal beeg faaxilam waaye foofu moom jiitu gi mu jiitu mëntoon a ñàkk ndax lisim buy laajte daa war a nekk ci bopp wax ja xam ne boo ne woon fa tunkiroo na ay ayaatillahi kon ka war a jiitu jiituut loolu lañ koy bañ nag moo tax kon jàppal ni ma foolu bii ma saa yu nekkee lisim buy laajte rek faaw day jiitu fexal ba faaxil ba doon dikk baabul mafooli lii mooy buntu mafool ma ëllës yi ma nga xam ne la muy sàmm tuddeefut faaxiluhu faaxilam te bëgg a wax nag naayib ki nga xam cosaan mafool la woon buñ dindee faaxil ba nag ñu rafaaku mu daal di wecci faaxil ba xam ne kon mafool la moo xam ne tudduñu faaxilam moom lañ tudd mu wecci faaxil ba waxuma moom al ismu mooy lisim ba al marfoof ba di bu ñu rafaa ëllës yi ba nga xam ne lam yu dëkkar tuddee fut maa xaw ànd ak moom faaxiluhoo faaxilam woo xiimata taxawleef ko xoo ci xoo moom ci boppam maqaama xoo ci taxawaayam ma fool mi nga xam ne moo sottu ko naayib lisim la boo xam day rafaa te duñ ko booleeg faaxil ba tudd moom mooy ñëw rek wecc faaxil ba daal taxaw taxawaayam fasaarati mu mujj mar foo xam di lu ñu rafaa tax da ankaana ci gannaaw ba mu nekkee man soo ban ji lu ñu nasab waxum datan tey kenn ci wax ji tax da ankaana ci gannaaw ba mu nekkee fadalatan di ndesit dafa na sa boon ndax mafoolu bii la woon waaye léegi day wëlbatiku rafaa ndax soppiku gi mu soppiku naayib kon de rafaa ni faayal rafaay woon te itam nekkutoon kenn ci wax ji mooy bokkutoon ci tax jumlaa mat waaye léegi moom dangam soppiku naayib moo wecc faaxil mu ñëwul rek jumla ji du mat ba tax mën naa soppiku nag kenn gannaaw ba mu doonee ndesit falaay joo su dagan xasfuhu asafam nga wala taqdimuhu du caageenu jiitalam nga xalal fi ci fiam la nga waxoon ci faaxil ne faaxil kenn sañu ko asaf faaw mu ñëw naayib noonu lay mel da nga waxoon ne faayil foo ko fekk lam jëf da koy jiitu moom mu door a dikk ndaa yi dut noonu lay mel faaw fexal ba da koy jiitu mbaa la mel ne fexal moom mu door a dikk waaye jibu dana war ta ni su fii luñ jigéenal fexal ba inkaana ndem nekk na moom naa yi bi mu ànd san di luñ jigéenal naxu turi bat dooreef na xindun xind saa yoo xam ne naayib bi jigéen la dëgg-dëgg faaw nga def ci fexal ba mandargam jigéen xanaa bu dee ci almaad yi nga def ci at bu dee mu daal yi nga tàmbalee ko taax di kib duri bat xindun ak tur darabu xindun yam xindun moom jigéen dëgg-dëgg la faaw nga defee at muy duri bat boo def mu daal yi faaw nga ne tur darabu xindun ak wa naxu ida zulzilat ndem yëngaleef na al ardu suuf si al ardu dañ koy jigéen ci langue bi rek te du jigéen dëgg-dëgg te ne woon bu la neexee def ci at ca fexal bu la neexee bàyyi fii tam bu doon sooxee bopp la neexee ne isa zulzilal ardu rek dañuy wax isa zulzilatil ardu xam ne foofu alquran daal bu doon sooxee bopp moom mën naa bañu at bu yejib dana war an laa yàl xaqa mu bañ a yëg alfin la fexal ba xalaamatu tasniyatin mandargam tasniya aw jamhin mbaa jamhu in kaana ndem nekk na moom naayib bi mu sànna ndi luñu tasniya aw majmuhan wala muy luñ jamhu dangaa waxoon ci faaxil ne bu faaxil bi doonee ñaar mbaa mbooloo du tax nga def ci fexal ba mandargam ñaar mbaa mbooloo fiit noonu la bu naayib bi doonee ñaar mbaa mbooloo bu mu tax nga def ca fexal ba mandargam ñaar mbaa mbooloo naxu duri ba az zaydaani bul wax duri baa wa duri ba az zaydoona bul wax duri boo ba tey duri batil xindaatu bul wax duri bu nal xindaatu wa yu sama def na ko tudde aydan ba tey an naayib aji wutu xanil faaxil walis faaxil xam nga ko tudde woon al mafulul lasi lam yu sama faaxiluhu ne nag des na ko tudde an naayibu xanil faaxil wa hadihi al xibaaratu yu ne waxin li ibni malik ñal na ibnu malik waxiyete moom ahsanu moo gën a rafet wa axsaru te moo gën a gàtt nee na nga wooyee ko an naayibu xanil faahili ibnu malik moo ko jëkk tudde noonu mel na ne te waxin wu rafet la wu gàtt gàtt la moo gën a gàtt nga naa al mafulu lazi lam yu sàmma faahiluhu wa yu sàmma def na tuddee fi'luhu fi'lam al fi'la fi'al ba al mabniya bari buñ tëgg lil maf'ul jëmee ci maf'ul wal fi'la daañu ko tuddee fi'al ba al majhula ba di buñ réere faaxilam wala si daañu ko tuddee fexal ba nga xam ne lam yu sàmm tuddee fut faaxilu wa faaxilam maanaam jëmmi fexalam bi ci boppam rek moo am ñetti tur daañu ko wax al fixilu al mabniyu lil mafooli daañu ko wax al fixilu al majhoolu maanaam fexal bu ñu réere faaxilam fexal bu ñu réere faaxilam ba dañ ko lëm daañu ko wax al fixilu allasi lam yu sàmm faaxilu ko ñetti tur nga ko fa in kaana dem nekk na alfin du fexal ba maadiyan di maad dumma kon dàmmeef awaluhu njalbeenam wa kusira te kasaraaf maa la nga xam ne qabla aaxir yi nekk na ci njëkk mu jëm nga maanaam bu fekkee fexal ba day maad yi da ngay daam mu jëlbeen nga kasara njëkk mu ga mais nag kusira bi ngay seen foofu kusira boobu fi mu toll noonu la dafa nekkoon kasara kasara na nga soppi ko kusira ñu daam mu jëlbeen kasara njëkk mu gi wa in kaana dem nekk na mudaari xandi mudaarihu dumma kon dàmmeef awaluhu njalbeenam wa futiha te fataaf maa la nga xam ne qabla aaxir yi nekk na ci njëkk mu jëm bu fekkee day mu daal di fi ngay daamu njëlbeen nga fataal njëkk mu ga mu ne yu sàmmaa jee ngay séen yu sàmmaa jële fi mu toll moom la dañoo daamu njëlbeen gi fataal njëkk mu gi misaal na ko it naxu duri ba saydun ak wayu darabu saydun fa in kaana dem nekk na almaadi alfixlul maadi ma mabdo andi lu ñu tàmbalee pitaa in citaa saa idatin guddi aji dolliku dumma kon dàmmeef awaluhoo njalbeenam wa zaani akub ñaareelam bu fekkee alfiilul maadi ma dafa am taayi ndooleen benn mu tëggoo tafaxala ni ki taallama wala mu tëggoo tafaaxala ni ki tadaaraba wala mu tëggoo tafaalala ni ki tadaxraja yett yooyu benn la ci mën a doon su boobaa da ngay dàmm taa ji nga xam ne moo nekk njëlbeenu baat bi ak arafu sës ci moom muy ñaareel ba te bu mu tee nga kasar lu njëkk mu jox bu mu tee nga kasar lu njëkk mu jox naxu tool li ma xam loof na wattu doori ba ak tu doori ba dóoran teef na dafa nekkoon taal la ma nga dàmm taa gi njëlbeen gi ak xëyin bi sus ci moom te teewul nga kasara njëkk mu gi muy tool li ma gis nga kee dafa nekkoon toddaa raba boo dàmmee taa gi ak daat gi alif nga soppiku waaw ndax toddaa la woon léegi mu soppiku tu doori ba wala toddax raja mu soppiku tuddu rija wa in kaana dem nekk na almaadi fii lu maadi ma mabdu andi lu ñu tàmbalee bi xam sati waslin ci am sa waslu dumma kon dàmmeef awaluhoo njalbeenam wa salisuhoo akum ñetteelam bu fekkee ne afihlu maadi ba dañ koo tàmbalee am sa waslu am sa waslu mooy am sa gi nga xam ne bu ko dara jiitoo doo ko jàngaaleeti boo ci tàmbalee nag jàngalee ko moom nag foo ko fekk fexeel ba mu nekk day mat juróom jëm juróom benn waaye du nekk mukk ci ñeent ba ñett naxu untulixa lu mel ne untulixa boyeef na muy dépareef na wastuxrija ak ustuxrija sàkkoof naa génne dafa bàyyi ko ci intalaxa ak istaxraja am sa boobu am sa wasul la ndax bu bu ko waaw jiitum da ngay wax rek wan talaxa wala wan tulixa bu ko faa jiitoo doo ko jàngale nekki fan tulixa wala fas tuxrija xam sa ko mel ne mat mat am sa waslu kooku nag bu fekkee moo tàmbali alfihlu maadi ma da ngay dàmm am sa ga dàmm arafu ñetteel wa tasar njëkk mu jox niki in talaxa nga ne un tu liqa dàmm nga am sa yi muy u taa daroo bu ñetteel nga def ko tu tasara laam gi istaxrija nga ne ustuxrija iktasaba nga ne uktusiba iqtasara nga ne uktudira lay mel wa in kaana dem nekk na almaadi alfiilul maadi ma moo tàllal xayin di aji rag xayin falakka ñeel na la kasru faahi kasra faaxam nga bu ne kasra faaxam nga mooy kasra arafu njëkk muy njëlbeen nga fataxiru tey mujj xaynuhu xaynam nga yaa andi yaa daa bëgg wax ne bu dee yetti araf yoo xam ne ba ci digg ba dafa ràgg kon lii mu wax nii moo ci gën a bari mooy da ngay def ci njëlbeen nga kasara def ci digg ba yaay ju maasul rek jàppal loolu moom ci gàttal saa yoo xam ne fifil maal ñetti araf la te araf ci digg ba dafa ràgg xamal ne kon da ngay def ci njëlbeen nga kasara def ci digg ba yaay ju maasul rek naxu xiila waxeef na ak wa biix jaayeef na cosaan la moo doon xu wi la ak bu yi xaa waaye dañuy wax ne waaw yaa lu ci daam mbaa mu kasara te la ko njëkk daam mbaa mu kasara da ngay nangu maskaam jox ko la ko jiitu te sotti ko bi ci kanam xam ne ko bu fekkee xuwi la la woon faaw mu sotti ko xii la ndax da ngay toxal maska waaw gi muy kasara yóbbu ko ci xaax gi bàyyi ko bi ji ko kon faaw muy xii la ak bien kon loolu nag mu bari loolu moom ni ki xaasa nga ne xiisa saama nga ne siima xaaqa gàllankoor nga ne xiiqa loolu moo bari wala ka ñeel na la ishmaamul kasarati fóonal kasara ga ak dammata dam waxi la def waaye waxuwa nag moom waxuwa mu gën a yell ci ishmaam waxuwa moom xaltul kasarati mooy jaxase kasara ga bicheyin ak dara ni sawti dammat ci kàddu dàmm ga maanaam fóonal kasara gi dàmm mooy maanaam nga tudd kasara gu kasara ba noppi jaxase ca dara ci dàmm daam daa xaw a duróon teg ci arafi tubaab yi iyu iyu boobu tubaab yi jàng daa mel ne moom la nduróol xam du ne kasara gu set dañ ci jaxasiwaale dàmm wala ka ñeel na la dambu faayi dàmm faaga fa tasiru tey mujj xaynuhu xaynam nga waawoon di waaw saakinat ngu di aju sukkoon kooku ne yomb na ni waaye taxu ko bari ci jëfandikoo bi mooy nga def ci njëlbeen gi maas ak lonk bàyyi ci digg bi waaw goo xam doo ko maas day bijji rek ni ki xaala nga ne xoola baaxa nga ne booxa jaasa nga ne joosa xaasa nga ne xoosa yomb na ni waaye bariwul ci jëfandikoo bi nga njëkk wax rek moo bari waaw gu sukkoon mooy waaw gu maasul rek loolu jubli ci waawan saakinatam ndaxu xoola waxeef na ba boox ak boox jaayeef na wan naa ibu ajootu xanil faaxili walis faaxil xalaa qismayni nekk na ci ñaari xaaj zahirin zahir wa mudmarin ak damir nee na naayib mën naa nekk damir mën naa nekk lu bokkut ak damir lu bokkut ak damir nag mooy zahir الظاهر الظاهر سا نحو قوله تعالى وإذا قرئ النيم جانجفنا القرآن القرآن كل بوني إذا ظرف جمعنا جي جملة شلا تيتقو لاف جملة قرئ موي فهل الماضي مبني لمفعول القرآن موي نائبا رفع دم كوكو نك لسمي ظاهر له والضرب صدفنا مثل أو ليب dóoréef naw lépp matalun ji mooy naa ib dóori ba ba tey mi ngi rafaay dàmm kon li simi zahir la ak wa qudiya te attees al amru mbir ma qudiya mooy fixilul maadin mabnil mafooli al amru ji mooy naa ib rafaay dàmm ba tey li simi zahir la ak qutila rëbboof na al xarraasuuna fenkat ya al xarraasuuna mooy naa ibi qutila mi ngi rafaay waaw ndax li muy jamxul mudakkari zalim ak wa yonrafu def na xam al mujrimoona way tooñ ña yonrafu fi'lun mudaarihun mabni lil maf'uli la al mujrimoona ji mooy naayibam rafaay waaw ndax li muy jamxul mudakkari salim yooyu yëpp li simi daahir lañ wal mudmaru damir ba naxu duribtu mooy lu mu ne duribtu dóoreef na ma wa durib naa dóoreef nanu wa duribta durif na la ila axiri ma ba ci mujjug la nga xam ne taqaddama jiitu woon na ci faslul mudmar laakin waaye yóbbu naa def na tëgg alfin lu fexal ba lil mafon li jëmee ci mafon nee na naay bu nekk damir moom yow mën naa xàmmee ba ngay jàng faslul mudmar damir yi nga waxoon ne muttasil lañ tey rafaa yooyu ngay dellu siwaat bu fekkee da nga leen jokk ci fexal te fexal ba sottiwoo ko ay faaxin lañu doon ni ki boo ne darabtu darabna darabta waaye nag boo soppee fexal bi tëgg ko jëmee ci mafon kon damir yi buñ ci jokkoo dañuy soppiku naayib ne duribtu dóoreef na ma la te darabtu moom mooy dóor naa dorib naa dóoreef nanu la dañ noo dóor bokkut ak darab naa doribta dóoreef na la noonu lay wéy nga ne doribti doribtuma doribtum doribtul na muy wéy ba ca fam yamoon ca fasul mu dumar waye noobu dana wóotu anil faaxili walis faaxil waaxidun kenn min arbaxatin ci yent am na yent yoo xam ne ku ci ne mën naa nekk naayib al awalu aji jëkk ji al mafoolu bihi mooy mafoolum bihi kama taqaddama naka mu jiitoo woon ku jëkk ci moom moom nga ci gën a miin mooy ka nekk mafoolum bihi nga def ko muy naayib yu bari ci nga weesu man nga ne yi nga weesu yépp sax moom lañu attaani ñaareel bi ak zarfu mooy taraf daraf moo xam zarfu samaan la moo xam zarfu makkaan la daañu ko def muy naayib naxu julli sa toogeef na amaamu ka ci sa një noonu la ko borom sara bi def moom da koy far rafaa def amaamu muy naayib julli sa ba noppi mu rafaa ko daa mel des na def nag julli sa toogeef na amaama ka ci sa kanam nga xam ne boo ne amaam mooy dërfu makaan te laa boo naayib julli sa rek da ngay daal di wax dërfu makaan luy àtteem nasab nasab bi fataa waaye daa mel ne sara ba moom dafa def julli sa amaamu ka daal di koy rafaa waaye xam nga një sa një béréb la kooku dërfu makaan la. ak wa siima wooreef na ramadaanu ramadaan ramadaanu mooy naa ibi siima te boo ko dee seet jamono lay rektale ndax turu weer la kon foofu lañ defee dërfu samaan muy naayib wa taalis aj ñetteel ji aljaaru mooy aji jar wal majroor ak lañ jar aljaaru wal majrooru daañu ko def muy naayib naxu wala maa suqita ba nga xamee ne roteef na fii ay dihim seen loxo bañ rotee seen loxo li muy tekki mooy bañ demee ba réccu rek daay max naa wala ma nadimoo suqita boobu fii loon maadin mabni li ma fooli la fii ay di nag mooy nekk jaaru ma jëloor lamboo naay bi suqita tey mu daaf xim bi ci des nag xam ne foofu jaaru ma jëloor moo fi nekk naayib arrabixu ñeenteel bi al masdaru mooy masdar masdar mooy baat bi wane xew-xew te du waxaale waxtuwam xewe naxu fa isa nu fi xande waleef na fi sóore ci bufta ba nafxatun ak wal waaxidatun ku diggéen nu fi xaji mooy fexal bi tëgg jëmee ci ma fool fi sóori nekk jaar ma jurul aju nu fi xa nafxatun boobu nag mooy naay bi nu fi xa mooy naay bi nu fi xa te itam mastar la foofu mu nekk nafaxa wal na nafxan ak wal mbaa nafxatan genn wal mastar la def ko mi naay bi daal koy rafaa waaxidatun bi naat la ci nafxatun wala yenu bu du wóotu xayrul mafxooli bihi kudul mafxoolum bihi maxaw joodi ànd aku amam moom mafxoolum bihi xaaliban ci la gën a bari li ci ëpp nag nee na bu fekkee mafxoolum bihi am na moom la ñuy def naayib waaye dees ko bàyyi di ko def keneen tam nekk fa wa isa kaana dem nekk na alfin lu fenal ba mu taxaddiyan di aji jàggati gis nañ ni jëm ci yaari mafxool joxi la kon defeef ahaduhuma kenn ci ñoom ñaar naayiban mi aji wóotu xanil faahil wali saahil wayun sabute day fi na sab azaani aji ñaari jëmin xuma ci ñoom ñaar su fekkee fexal ba day jàggati jëm ci yaari ma fool mi ngi mel ne juxi la jooju mu wax juxi la jooju moom la suñ ko teggee jëmee ci ma fool moom fexal ba te fekk muy jàggati yaari ma fool da ngay rafaa kenn ko muy naayib bàyyi ko ci des mën a sab mais ne fi tool juxi la ngaa def ahadu muy naayibam laa fuma naayibam nekk ma foolum ñaareel boo xasee tudd naayib nag mafool ma ngay gisaat la nga koy tuddee mafoolum ñaareel ndax naayib ba nga rafaa ci cosaan mafool la woon moo tax misaal na ko ci naxu xawlika ontiye joxeex na zaydum sayid dirhaman ab daram xam ne ontiye fiilun maadin ma bañun li mafooli la zaydun ji mooy naayibam dirhaman nekk mafoolum ñaareel ndax boo waxee naayib rek daal ngay tudd benn mafool kon dirhaman na nga koy tuddee mafoolum ñaareel baabul mubtada yi lii mooy buntub mubtada wal xabari ak xabar al mubtada wu mubtada huwa moom al ism mooy lisim ba al marfoo ba di buñ rafaa al aari yi bay aji raflewu xanil xawaamili walis way jëf ya al lafziyatee ko jóg baat mubtada lisim la boo xam dañ caa tàmbalee wax ja atte mooy rafaa te itam du am aji jëf joo xam ne jooy jàkkaar loolu teg ci bët xaamilun maana wiyun lay am aji jëf joo xam ne maanaa lay doon mooy du doon doy teg bët dañ koy xam rek ne tew dafa rafaa ñàkkul lu ko rafaa rek waaye du am aji jëf joo mën a teg bët borom saraa bi nag moom day wax ne al xaamilu al maana wiyu huwa al ibtidaawu allasi huwa tajarrudul ismi lil isnaadi fa inna saxiixa annahu alxaamilu fi lmubtada yi day wane ne alxaamilu almanawiyu mooy tàmbalee ga ñu tàmbalee lisim boobu nga xam ne moom la ñu wéer jëmale ca moom waxoo moom na xismaani ñaari xaaj la